asalaamaaleykum chers internet Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen a ñu taamu di ñu suivre si suñu plateforme yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen euh, sant di leen jaajëfal te leen ñaanal kenn ak jàmm tey nag ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy la revue de la presse maanaam li nga xam ne moom la yéenekaay yi xëyee. ñu ñëw ci rapport bi nga xamante ne Macky Sall jot na ko ni ki démb tribune yéenekaay di ñëw ci juróom-ñetti fan après les consultations. concertation Macky Sall reçoit le rapport de son dialogue maanaam ni mu ko bëggee woon fast track bi ko bëggee woon noonu la ko amee juróom-ñetti fan jox nañ ko jébbal nañ ko li nga xamante moom mooy rapportu a fes ci bi nga xamante ne moom mooy amnistie te Macky sàkk woon ko tey yéenekaay yëpp ubbee ko ki nga xamante ne moom mooy Sud Quotidien xëy projet de loi d'amnistie l'assemblée mise en mise en branle maanaam ñu def lu gaaw a gaaw a gaaw maanaam fast track ñu dëkk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy 24 heures di ngi titre ñoom allo conseil constitutionnel euh, ici le feu le vent de braise souffle partout. maanaam safara si fépp lay fëlee ci côté ñi nga xamante ne ñoo di pouvoir bi lii di Union européenne lii di Nations Unies lii di les Britanniques ñoom ñëpp ñu ngi nemmeeku benn pression ba nga xamante ne moom la ñuy teg pouvoir bi. ba léegi ci 24 heures ñu gis na ki nga xamante ne moom mooy le ministre Sidiki Kaba ak le ministre Ismaïla Madior Fall di sàkku ci seen raport ndimbale conseil constitutionnel maanaam ci application de laliena 2 de l'article 36 de la constitution ba léegi ci dialogue bi maanaam code électoral bi ak datu présidentielle bi Macky di ci ñëwaat ginnaaw ba mu jotee li nga xamante ne moom moo di conclusion bi ci dialogue bi di wax ne léegi dina gën a nekk à l'aise pour mën a fixer maanaam datu élection yi waaye nag na lépp jaar si yoon maanaam teg ko ci base légale d'une élection di ca joxoñ article LO 137 ñu ñëw ci la point le point bi nga xamante ne moo xëy titre Macky Sall abassé dernière carte maanaam Macky Sall fësal na li nga xamante ne moom la namoon ci carte gi maanaam ci jeu bi le chef de l'État à la reprise du processus comme niñ ko waxee woon nemmeeku ko mooy Macky Sall li mu namm mooy lépp loo xamante ne mooy processus électoral bi ñu tàmbali ko waat ba ñëpp ñi nga xamante ne xalaat na ne war nañ cee mun a bokk ñu bokk ci ba pare nag di sàkku li nga xamante ne moom mooy la loi d'amnistie la loi d'amnistie bi kan lay profité Macky Sall en tout cas takk na ripp ci luwaawu amnistie bi bëgg ñu voté ko Ousmane Sonko la bëgg mu bokk Karim la bëgg mu bokk Jomaay la bëgg mu bokk wala boog ñi nga xamante ne ñoom ay candidat APR lañu te ñu rëkkale leen xañ na ñuñ la bëgg ñu jox jox leen chance pour que ñu mën a bokkaat ci li nga xamante ne moom mooy jongante élection présidentielle yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy le point di ñëwaat ba léegi ci risque yi nga xamante ne moom moo tegu ci ndodd conseil constitutionnel kii di Amadou Mame Diop question la bu ñuy laaj ndax Amadou maam Diop président du tax tamit li nga xam ne moom mooy processus électoral bi yëpp ñu tàmbaliwaat ko ñu ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy dépêche dépêche de titre à quoi joue le président maanaam Macky kan lay fooyee wala Macky Sall ci lan la nekk kenn xamu ko. amnistie sans jugement yéenekaay bi di samp ab laaj depuis 21 jours ki nga xamante ne moom mooy le gardien de la constitution n'exécute pas lu waral loolu ñu ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy tribune xëy titré quelle honte vers une immunité pour les politiciens Macky Sall chercherait-il à couvrir ou protéger ses proches cité dans le recrutement des nervis armés Macky kan la bëgg kan la bëgg a protéger kan la bañ justice dal ci kawam bu fi jógee ginnaaw nee na moom daf fiy jógee le 2 avril incha allah kon kan la Macky Sall di protéger ay jege ñaaleem la wala li nga xamante ne moom mooy devoir am li nga xamante ne moom mooy prérogative am maanaam fexe jàmm am ci réew bi ndax loolu moo ko tax a jóg li ñu nemmeeku daal mooy takk na ripp ci loi amnistie bi. ba tey ci tribune ñu gis ne waa Amnesty International ñu ngi wax ne lii nga xamante ne mooy loi bi. woote ko mooy doyadal ñi nga xamante ne ñoom ñooy victime manifestation yi maanaam ñi ci am gaañu gaañu ak ñi nga xamante ne dañ cee am ay dañ cee ñàkkale ay bakkan ba pare di samp li nga xamante ne moom mooy dëgg di samp di dëggal li nga xamante ne mooy impunité fii ci Sénégal maanaam lu waay neex def. ñu ñëw ba léegi ci amnistie bi ñi nga xamante ne ñooy suñu naataangoo l'éveil di. di bind ci Thierno Alassane Sall Alassane Sall mi nga Thierno Alassane Sall mi nga xamante ne daa mës a bañ li nga ne moom moo di loi amnistie di xamal ne kalaa jéggale dangaa war a xam lan mooy dëgg bi ba pare balaa ngaa jéggale balaa ngaa jéggale dangaa war a xam lan mooy dëgg bi maanaam la vérité doit précéder au pardon ñu ñëw ci lii quotidien lii quotidien di wax ne le projet le projet très controversé de Macky Sall maanaam li nga xamante ne moom mooy am amnistie bi ñi nga xamante ne d'accord nañ ci bëriwul wala ñépp kenn d'accord ci li nga xamante ne nag moom mooy loi amnistie bi ñu nemmeeku ci li ñu wax moom mooy les infractions commises temps au Sénégal qu'à l'étranger et couvrant la période de février 2021 à 2024. permettra aussi à des personnes privées de leurs droits civiques et politiques d'être rétablies dans leurs droits kon nag ba léegi ñu ngi ñëw ci li nga xamante ne moom la Macky la wax ne moom moo tax mu def li loi amnistie bi maanaam sàkku li nga xamante ne moom mooy l'élection la participation inclusive de ñëpp ñi nga xamante ne tey jii conseil constitutionnel tànn nañ leen pour ñu mën a nekk ci élection yi doxal jàmm te moom mu jóge fi ak jàmm bàyyi ñu ci Sénégal ak jàmm. ñu ñëw ci regard mi nga xamante ne moom mooy titre Macky efface tout Macky efface tout express qui titre le conseil constitutionnel désormais maître du jeu comme mag yi dafay jébbalaat lépp loo xamante ne mooy décision kii di conseil constitutionnel ñu toog xaar ba xam li nga xamante ne moom la conseil constitutionnel di jël ci ndogal dina tax tey confiance bi nga xam ne ñàkkoon nañ ko ci ñoom ndogal yi ñuy jël dina tax ñu restauré ko ba nga xamante ne lii nga xamante ne moom mooy sénégalais yi mën a jox leen crédibilité bi nga xam ne moom la ñu amoon d'antan ñu ñëwaat ci kii di yor yor yor yor xëy di titre le refus de respecter l'article 27 de la constitution Macky entre subterfuge et dilatoire maanaam Macky Sall comme bëgguta nangu li nga xamante ne bëgguta tënku ci li nga xamante ne moom mooy article vingt sept bu constitution bi Macky day layam layamal di yéexal mbir yi pour ut yoon bu mu mën a jaar ba génn ci guute gi nga xamante ne moom la dugal Sénégalais yi. ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy coowul Air Sénégal Air Sénégal ñi nga xamante ne dañoo wax ne depuis trois jours Air Sénégal n'arrive pas à transporter ses clients plus de quatre cents passagers sont dans la détresse sans interlocuteur te loolu moom nekk loo xamante ne lu njëkk la direct news di samp laaj maanaam milliards yi nga xamante ne dugal nañ ko ci biir euh, Air Sénégal di jëndee ko ay avion jëndee ko ay avion léegi avion yooyu anañu fan la ñu nekk fu ñu dugg ba tax li nga xamante ne moom mooy seen liggéey waruñu koo def mënuñu koo def normalement avion yooyu dañu ko abal dañu ñu koo jaay wala dañ ñu koo lebal loolu nekk na loo xamante ne moom la ñuy laaj ndax Air Sénégal fi mu toll nii fi mu toll nii seen kaa doy na waar kii di direct news di sàkk ñu def audit ci biir Air Sénégal foofu nag lañ leen di tàggoo di remercier ñi nga xamante ne ñoom ñooy les internautes de Senego TV di ko safoo di ko suivre di leen wax ni à la présentation Fambaye Ndiaye Badiane Abdou Khadre Diouf le grand technicien merci di leen yéen ñaanal kendal ak jàmm jërëjëf.